xanaa di ngeen d'accord ci report bi. ban report. ah yaa ngi dox affaire report de eh, ñu ngi koy jiiñ waa nguur gi waaye ñiy dox report bi dëggantaan ci opposition bi lañ nekk. <laughs> am na nag waa nguur gi. kan moo ko doon ñuy ah, ah, manœuvre waa nguur gi dama dégg waa góor gi. non waa nguur gi am na ñuy mais eh, ñooñu ba tekkiwuñu dara. ci nguur la. ci nguur gi am na ñu tekkiwul dara yuy manœuvre report. mais les yow da yaa xam ñëpp les vrais partisans du report mm -hmm. ils sont dans l'opposition maa ngi gis ñuy sóob di ko jiiñ nguur gi waa opposition bi ñoo bëgg report PDS de bokku ci non PDS bokk bon PDS je sais pas non non PDS bokku ci PDS je sais pas ñun nous avons toujours mais am na opposition boo xam ne report rek lay ñaan non ñun dañu mës a wax te loolu aussi kuy wax war nañu ko nangul quand même d'accord leen ci report mosuñu si nangu donc yéen l'élection doit se tenir à date échue ou ne pas avoir lieu sans Karim. bu Karim ñëwul élection bu mu am. déedéet du am waxuma bu mu am. parce que dafa mel naka dañuy ñaan du am. waaw ah, sëñ bi nag yow màgget nag tam bu leen ñu delloo ci ay mois de juin. kan moo leen conseil moo leen delloo si mois de juin du ñun de. conseil constitutionnel moo leen delloo si mois de juin. Karim est un républicain. waaw mais ñun. dans les moments les plus difficiles ñun wu wuñu condition wu dellu gannaaw. dans les moments plus difficiles moo embrayé marche arrière. mais dans les moments les plus difficiles. waaw Karim Wade est resté républicain. jusqu'au bout des ongles. et il le restera. ba muy traverser sa période là. waaw euh, de de de crise là avec la CREI. Mhm. la ca tukkee. Mhm. Karim Wade n'a rien perdu. Mhm. de sa démarche républicaine. comme le président Wade. non man Ablaye Wade dama ko jéggal. ah non dama lay wax rek parce que aussi il faut ngay wax il faut ngay wax ngay wax daara ju ñu génne. non Ablaye Wade fu ñu jàngi fi Ablaye Wade c'est une une personnalité transversale. Mhm. qui transcende euh, toutes les toutes toutes les obédiences politiques politico-sociales je parle pas de Ablaye Wade. je parle de Karim mais war nga nangul ni ses élèves et ses fils. war nañu mën a jaar ci ay tànkam. ma ne la lan la qu'est-ce que vous entendez par là vous ah, n'entendez voilà. pas euh, amener de la tension dans le pays non la tension ñu koy indi ji mooy ñuy créer les situations de tension wala ñuy créer des situations yu mën a jur tension bokk na si le conseil constitutionnel bokk na si le régime en place bi nga xam ne day utiliser les les les les cours et tribunaux pour xeex ses adversaires et depuis deux douze ans loolu la ñuy moo tax ñuy appeler les militant à la résistance parce que lii warul wéy mais quand même justement. mais résistance bi lan la euh, yan forme la na a jël. ah voilà loolu on nous on nous allons la définir aussi sur toutes les formes. mais d'ores et déjà qu'on que le PDS est contre toute idée de report de l'élection. de tout le temps même ba ñuy dem au dialogue wax nañ ko ba ñuy dem au dañu ni nous y mais. nous ne sommes pour le report des élections nous militons pour que élection bi ñu tenir ko à date échue kooku kuy waxal yàlla war nga ko xam ne xamal PDS jógewuñu ci situation boobu ba léegi parce que xam nga mandat mandat président cinq ans la ñii di wax constitution constitution moo ko wax tey ak lu ñu mënta def suñu prolonger mandat bi <laughs> mais prolongation boobu ku fay nekk ki da ngay nekk président mais doo am légitimité. Mm-hmm. donc ñun doxuñu ci loolu. doxuñu ci loolu. non doxuñu.